asalaamaaleykum mbokki àddina asalaamaaleykum yéen ñi ñuy safoo saa su nekk ci seen biir émission Zap Série fu waaye mën a nekk ci àdduna bi fekk nañ la fa jox la suñu nuyoo tey nag indi lañ leen seen rubrique revue de série revue de série nag fas yéene càmbar ñaari série yu bees yoo xam ne mi ngi daw jamono ji ñu tàmbale ko ak série boobu nga xam ne moom mooy sama wujju tubaab la kër mbaa nag deful lu dul neex ndax ki nga xam ne yor na ñaari jéegam jéegu tubaabam ak jéegu sénégalaise am kenn du Ngoné mbaay mi ngi dund ngéwél gi à 100 pour cent borom xale jonge waaye nag kenn du ani tamit moom ndax moom tam mi ngi def ay feemam pour marquer ay points am Ngoné mi nga xam ne moo ko doon tendance heure bu xëyee dafa mel ni mu ngi reculer reculer de waaye kii nga xam ne moom mooy mbaaya sëyiwul bougéwul randuwul dóorul fayiwul heure bu xëyee di jaxase kër gi de gauche à droite bu faralee Ngoné mbaay ba nga yaakaar ne moo ak mu tourné bu ko ani sànnee ay 10 000 mu faral moom genre njëkk yooyu noonu la ñuy def sëyiwuñu bàyyiwuñu ko sëy bu njëkkee ci série nga xam ne moom mooy sama wujju tubaab la ñu jàll ci Madior ak Dior moom tam mu nekk série bu bees jamono ji mi ngi cartonné kii di papay Madior ak bàjjanam kat dañoo bëgg Madior takk kii nga xam ne mooy cousine am di Yaama waaye ndeke Yaama ak ndeyam seen plan du lenn lu dul bu ko Madior takkee ñu fexe ba rey ko reyaale papa mun a doon alal gi doon kër gi waaye nag dafa mel ni seen plan mi ngi waajee foiré ndax kii di Madior kat tase naag benn xale bu jigéen boo xam ne jaaykatu journaux la tax na jamono ji mbëggilam ci moom la ko tourné li ñu naan le hasard n'existe pas waaye li ñoo ñuul ci soow mi mooy dafa mel ni maajoor ak joor ñoo bokk ndey ak baay ñu ne déet teg ci nekk ay seex ndax kii nga xam ne moom mooy yaayu joor moom dafa riir 30 ans xamul moom mooy kan xamatul ay mbokkam xamatul fu mu bokk ginnaaw bi mu amee ay seex ci la disparaître kenn gisatu ko ndeke pexe li ki laloon pexe yooyu yëpp du kenn ku dul bàjjanu maajoor waaye kii di papay majoor nag moom gëm na ni ne yaayu maajoor deewul comme ni ko nit ñi foogee lu ci kanam rawuli bët ñu toog xaar suite bi yéen mbokki internet yi fii la ñuy yem ak yéen mais laataa may tàggatoo dama leen di ñaax comme ni ma koy defee saa su nekk ngeen abonné wu ci suñu chaîne YouTube Afri yi bu leen fàtte bës cloche bi ndax ngeen mën a am notification yi à temps réel jaa ngeen jëf ba semaine prochaine.